ginnaaw bi ñu sante gërëm bu baax a baax euh, Serigne Bassirou Anta Niang di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a yàggal suñu kanam te yokk ak wéram di nuyu ak di ziara le chef de village Serigne Chass Faye le porte-parole de la famille Serigne bas Abdou Khoudous ak njabootu borom daar Muxti gi yëpp ñoo ngi santaat bu baax a baax population Daaru Muxti yi nga xam ne ñoo ñu fal en tant que maire mais fal aussi le conseil municipal bi nga xam ne ñëw nañ daje fii ci jàmm ak salaam fal aussi quatre adjoints au maire yoo xam ne nii dañu respecter la parité nga xam ne tey suñu première adjointe jigéen la ki ci tege nekk góor ki ci tege nekk jigéen ki ci tegewaat nekk góor nga xam ne kon ñun parité bi bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ngi koy jéem a dundal wax nañ ko sànq ñoo ngi invité ñëpp ñi nga xam ne ñoo àndandoo woon ci élection yi ñu indi seen i programme ñu booleeg programme bi nga xam moom la am pour ñu mën a am un programme boo xam ne ni ce sera un programme commun nga xam ne 100 pour cent waa Darou Moussi yëpp danañu retrouver wu seen bopp ci programme boobu parce que suñu programme am na ñu ñu votel am na ñuy votel donc suñu booleeg ñeneen ñëpp bu boobaa danañ am programme boo xam programme bu baax la bu gën a baax donc moo tax ñoo ngi invité aussi les conseillers ñu xam seen rôle respect des horaires respect liggéey bi nga xam aussi moom lañ leen di liggéeyloo mais également comme niñ ko waxee ci tubaab rek suñu priorité cette année parce que ci mandat bi euh, parce que seetlu nañ ne lu ci ëpp ci infrastructure de base yi nga xam ne moom la mairie war a def lu ci bari en terme de poste de santé en terme d'école mairie bi liggéey na ci lu bari bari naam des na nag euh, ndax bëgg nañ am poste de santé à jàmm bëgg nañ ko am à Diwane Silla bëgg nañ aussi yokk école yi ci dëkk yi nga xam ne amuñ amuñu ko amuñu ko l' extension du réseau hydraulique également même su fekkee ne ndox du compétence boo xam ne dañ ko dénk collectivité territoriale aussi dañ accompagner le comité pour que ndox mi mën a àgg ci dëkk bi fu mu war àgg fu nekk mais également ñu am château d'eau quatrième forage bi mën a am château d'eau bu boo xam ne ndox mi dana mën a àgg bu baax a baax donc dañuy wax rek ne incha allah suñu mandat bi dañ ko bëgg a placer su de la jeunesse et de la femme c'est-à-dire que lépp lu ñuy def dañu bëgg mu tourner wu essentiellement autour des jeunes et autour des des femmes pour loolu mën a nekk nag ñoo ngi ci woo ñëpp ku ci nekk mën a ñëw jàpp ci ñu mën a redynamiser suñu cadre de concertation yi nekk ci ci koñ yi mën a impliquer également képp koo xam bëgg nga bëgg nga liggéey pour mu si jëm ci kanam. nee naa leen euh, fàttaliku mu fu fekkee élection boo xam écart bi. nii la demee daanaka parce que pour le département am nañ 6500 voix juróom-benn téeméeri baat ak juróom donc juróom-benn téeméeri baat ak genn wàll ki topp ci ñun ñetti téeméer euh, juróom-benn junni baat ak genn wàll ki topp ci ñun ñetti junni baat la xam nga yaay loolu moom kon leer na naññ nga ñëw ci commune bi ñu am ñaari ñeenti junni baat ak juróomi téeméer ki topp ci ñun ñaari junni baat ak genn wàll la am kon nga ñaay loolu aussi amul amul lu ñuy laam-laamee ba mën a wax naan leer na wala leerul parce que bu fekkoon ne ay xob yu ndaw lañ rawee rek su boobaa dañ mën a wax te nit ñi dañ ne ah leer na wala leerul mais yàlla dafa dogal mu leer nañ donc ñooñu dañ leen di invité rek wax leen ne ñun pour ñun amul vainqueur amul vaincu pour ñun Darou Mousty moo gagné nañ ñëw indi liñ doon wax waa Darou Mousty ñu booleek li ñu yor ñun tam ñu liggéey ci pour am Darou Mousty goo xam ne nii ma nga ca kaw.